moom mii nag da see defoon li nga xamante ni moo di ay coppite ñoo xamante ni mën nañoo am li nga xamante ni moo di passeport diplomatique wuuteeg lool gis-gis ak ñi nga xamante ni ñoo ko fi wuti jamono jii li nga xamante ni moo di président Bassirou Diomaye Diakhar fay moom muy nag mën nañ ni mu dugal si ñu bëri ñoo xamante ni daal ñu ngi si assemblée nationale ni moo di passeport ministre ak ñi nga xamante ni moo di Aji Mergane Kanouté nekk fi nga xamante ni moo di ci euh, nekkoon ancien ministre si euh, président Macky Sall moom moomee nag démb da doon def li nga xamante ni moo di ndax ñoom ñooñu nag jàpp nañ ne ki nga xamante ni daal liggéeyatu Sénégal jamono ji maam yoratu benn li nga xamante ni moo di benn passeport diplomatique boo xamante ni daal day dem ak ñëw ndax liggéeyatul li nga xamante moo di Sénégal ki nga xamante moo di président Macky Sall nag laataa ma fiy jógee comme ni ma ko waxee léegi rek laqaati moon benn décret daal may ñi nga xamante ni daal ñoo fi nekkoon ay ancien maanaam ancien ministre ak ancien député ak li nga xamante ni moo di ancien ministre wala ancien sax président de la république ñu may leen li nga xamante ni moo di ay passe ay euh, passeport diplomatique mën nañ ne nekkoon euh, loolee indi li nga xamante moo di coow li kon nag loole mën nañ ne nag bu ñu ko bëggee soppiwaat faw ñi nga xamante ñoo fi wutu bees nii mën a signé beneen décret pour annuler euh, lu ni mel